xam nga état dafa am lu muy tëddee boo ñëwee ci euh, service fekk lu nga xam ne état da koo defoon doo ñëw di ko teggi parce que loolu du état état du doxe du doxe noonu donc bi ñu ñëwee fekk ñu tàmbali contrat bi di ko exécuter dañ ne nañ ko wéyal ci wéyal googu ci la ñu ci la ñu nekk te ñu ngi koy wéel bon léegi nag bu yàlla dogalee contrat bi jeex bu boobaa nag ñun ñooy ñi nga xam ne léegi ñun ñooy yore suñu responsabilité ñooy seen nag bu baax ñun yan tànk la ñuy taxaw ak ñun la ñuy. nan la ñuy nan la ñuy nan la ñuy doxee mais damay wax rek ne euh, boo gisee ñu soxla Touba tey soxla Rasiat euh, ci segal mi c'est parce que suñuy machine moo doyul suñuy machine yi ñu am ci Ziguinchor ak ci euh, Kaolack li ñu am ci ay clients ñu war a jënd dëwlin doyul maanaam machine yooyu doyul donc fu ñu jaar sukkandiku ci Touba pour que Euh, yokk suñu suñu suñu production yokk suñu capacité parce que ba jamono yi may wax yéen am nañu contrat yu nga xam ne contrat dëwlin la jëloon nañu ay engagement ni mois de mai daañu ko joxe wala mois de juin daañu ko joxe bon boo moytuwul duñ ko mun a joxe d'ailleurs moo tax may ñaax euh, euh, service yi ñu jàppale waa Touba ci jox leen gerte gi waaw cest di que lu lu mu gën a gaaw rek joxe gerte bi lu mu gën a gaaw rek moo gënal Sonacos parce que non seulement nawet baa ngi ñëw te dañu war a éviter taw bi fekk fa mais ensuite moo ñuy mën a may aussi ñu mën a am ay quantité dëwlin yu nga xam ne daañu ko mën a jox suñu suñu clients yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaar te bon bu ñu génnee ci clients yooyu nag comme ni ñu koy waxee ñun la ñu gën a ñor dëgg dëgg dëgg ci njaayum dëwlin parce que damay fàttali souvent ne bépp dëwlin brut bu ñu jaay duggul ci keesu Sonacos keesu banque islamique la dugg cent pour cent yi. 100 pour cent yi ci keesu banque islamique la dugg. pour yan raison. mooy euh, gerte gi nga xam ne mooy campagne bi ñu passé AFTC muy filialu banque islamique ñoom ñoo ñu lebaloon 50 millions de dollars ñu jënde ko gerte gi li ñu waxante woon ak ñoom nag mooy weer wi da ngeen ñu jox nangam weer wi da ngeen ñu jox nangam weer wi da ngeen ñu jox nangam donc weer wu jot am na lu ñu leen war a war a jox alors la ñu tënkoon ñoom tamit mooy lépp lu ngeen jaay ci huile brute. day dem directement ci keesu AFTC lépp lu ngeen jaay ci ràkkal euh, noonu même dëwlin bii nga xam ne dañ koy raffiné ca Ndakaaru parce que huile bii bu ngeen ko jëlee Touba bu demee Ndakaaru dañ koy rafine pour mu duggaat maintenant euh, ci huile de table mooy yooyu ngeen di gis ñoom niinal xam ngeen leen ñoom ñaani ñoom aradoor euh, yooyu yooyu yooyu noonu soixante-dix pour cent yu ñu ca jaay ci ay fii si donc Sonacos. bor bi dale na xoj noonu noonu lay dundee. alors moo tax ma doon wax léegi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom chef de service ñu àndal may leen dafa dëwlin baax na mais souvent procédure dëwlin dafa yeex am na yu ñu jaayoon ca début départ ba te ji ñu may woo di ma soññi naan ma AFTC mu ngi laaj alors que ñu procédure yi dugal nañu document yëpp ba nga xam ne waroon na dem ci keesu AFTC mm-hmm. te njaayum gerte mi nag njaayum kemb ki dafa nekk lu nga xam ne Euh, moo xam bojj sol la moo xam kemb la moo xam nangam dafa ne loo xam dafa gaaw waaw te nag ku nga xam ne dafa war fay bor tam gaaw nag vraiment euh, il faut ñu yokk aussi njaayum gerte loolu njaayum kemb mi njaayum kemb mi il ñu yokk njaayum kemb mi ba nga xam ne li ñu suñuy échéance AFTC daal daañu ko mën a respecté dootuñu amati benn problème parce que loolu c'est du cash dugal ci compte AFTC bu ko defee ñu parce que bu ñu bu ñu bu ñu konnewu di leen fay campagne dina jot ñooy leen financé leen ñu duñ ñu financé donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu gis ci fii ñu ngi gërëm ñëpp